ganu suba si euh, nekk ci buumu jokkoo bi di ki jiite association des clients et sociétaires des institutions financières ak SIF Famara Ibrahima Cissé ñu lay nuyu. maa leen di fay di leen gërëm leen sant ci dalal lu ngeen ma dalal tey ci invité matinal. di la jaajëfal bu baax a baax am mbégte euh, jokko yow euh, jamono ji nga xam ne bëri na liñ leen di dégg ngeen amal ay sitting di amal ay communiqué di ci artu jëm ci banque CBAO ñu bëggoon a xam lu xew. waaw Sénégal jamono jii dafa yéeme. Hmm. Euh, ci mbirum koom parce que dafa am benn banque bu ñuy wax CBAO bu xëy rek jël benn ndogal boo xam ne waxtaan ci kenn tàgguwul kenn mu bëgg ko forcer nit ñi. Hmm. ndogal bi nag du dara lu dul CBAO dafa ne euh, day supprimer dafa supprimer guichet unique. Hmm. daanaka supprimer guichet unique mooy tey boo ibbee sa compte parcelle mënoo retirer lu dul parcelle. daanaka boo demoon ba Pikine wala Géejawaay am problème xaalis sa compte am xaalis nga bëgg fa retirer par chèque. Mhm. doo ko mën. Mhm. léegi nag client bi il faut ñu xam ne ñaari compte la am dafa am benn compte bu ñuy wax compte courant mooy fi muy jëflanteeg virement yeeg yooyu. Mhm. compte boobu banque bi moo ci gagné parce que da dagg ay agio ak ay frais ak mu am beneen compte bu ñuy wax compte épargne mooy dencukaay xaalis bi. compte boobu banque centrale dafa wax réglementation bi dafa wax ni. banque bi moo war a fay client bi. Hmm. léegi nag mu ne bu dee compte épargne bi la. Hmm. mënoo dem fenn ba retirer ñaar dërëm. Hmm. sa agence ba nga ibbee sa compte rek nga ko mën a retirer. bu dee compte courant bi la boobu mën nga retirer par chèque ba deux cent mille bu ko weesoo nag kenn du la fay. mu mel ni tey commerçant bi tey bu joxee nit chèque wala yow moom sa bopp nga jox nit chèque mënul dem retirer ko fudul sa compte sa compte bu dee sa agence. dafa nekk Tamba. Mhm. da ngay dem ba Tamba nga doora a tey militaires yi nekk Casamance. Mhm. nga xam ne benn yoon li ñuy ñëw ci at bi seet seen njaboot. Mhm. di leen bàyyi ay chèque tey kenn mënu ci retiré foog dafa dellu ba ca agence su euh, militaire ba fu mu ubbee comptam pour mu retiré ko. loolu nag dafa nekk loo xam ne day gàllankoor économie réew day gàllankoor koomu réew moo tax ñun bu ñu yëgee ndogal bi. li ñu njëkk a def mooy dañoo artu bind. jox direction général mhm. xamal leen ni mesure bi day gàllankoor suñu koomu réew. nañu fexe ñu teg ko ci suuf parce que kat lii daf ñu delloo gannaaw guichet unique yàgg na fi gi euh, yàgg na fi tax dafa tax euh, transaction yi daanaka jox joxlante yi ci mbirum koom gën a yomb. Mhm. buñ ko envoyé lettre bi defu ci dara. seen syndicat bi bu mu yëgee loolu moo ñëw gis ñu. ni xeex bi ñu ñoo ko bokk. ñun dañ cee ànd ak yéen bu mu jeex tàkk. léegi nag dañ leen di ñaan ngay may ñu fukki fan ñu waxtaan ak direction bi ndax ñu teg ko ci suuf bu fukki fan yi weesoo nag ñoom ñooñu woowaat xamal nañu ni direction bi lank na ne day supprimer guichet unique. léegi nag ñun ñu jël suñuy responsabilité ñu bind bataaxal jox état du Sénégal bind bataaxal jox banque centrale parce que il faut ñu xam ni mbirum banque ñaar ñooñu ñoo koy saytu. Mm-hmm. ci dëkk bi. mooy kan mooy état du Sénégal ministère des finances ak banque centrale. Mm. léegi nag ministère des finances moom dafa am benn bànqaas bu nekk foofu bu ñuy wax OQSF. Mm-hmm. observatoire pour la qualité des services financiers. Mm-hmm. moom moo war a càmbar mbirum lépp lu jëm ci banque lu jëm ci assurance lu jëm ci euh, émetteur de monnaie électronique yi mais yàlla dafa def euh, structure boobu. Mm-hmm. dañoo liggéeyul pourtant de monte de. Euh, état bi ñu leen di jox lépp lu war jox nañ leen ay salaire yu 6 millions ku ci nekk jox leen ay oto jox leen ay 4x4 jox leen ay mobilier jox bureau yi lépp mais jàppalewu ju kenn te ku leen jox plainte duñ ko traité pendant des années mënuñu la génneel bilan boo xam ne tey convaincre na Sénégalais moo tax président de la République. boo leen mm-hmm. seetloo. Mm-hmm. ci conseil des ministres bi weesu dafa jël ay dogal. mu ne ne ko ministre des finance saytul structure boobu. Mm-hmm. que structure boobu. Euh, il faut que ñu évaluer ko pour xam ndax dañ ko war a téye wala ñu ko téye ñun nag ñu wax président de la république loolu na ci dem ba jeex ministre des finances ñun pare nañ pour accompagner ko parce que structure boobu dafa liggéeyul alalu askan bi ñuy jël di ko fa dugal mu am ay nit yoo xam ne ñu ngi fa di tëju seen bureau yi mosu def dara client bi bu sonnee ñoom seen yoon newu ci boo envoyé plainte ñu jël ko dugal ko seen seen seen seen yi bàyyi ko foofu duñ ko traité ñun wax dëgg yàlla dañu ci dimbale ñu teggi fa ji fa nekk teg fa ñoo xam ne danañ mën a taxaw ci jafe-jafe. Mm-hmm. askan bi d'accord nga foog ne lan mooy mbébétu CBAO euh, ci dogal yi nga xam ne mu ngi koy jël. waaw xam nga euh, CBAO mesures yi koppar dong la ci séntu. Mm-hmm. parce que gis na ci benn gain de trois milliards boo xam ne moom jàpp na ni mesure bu ko bu ko bu ko jëlee dana ko gagné ci naka. am nga compte épargne ak compte courant fàttali naa ko sànq. Hmm. nee naa leen compte épargne mooy bi ngay denc sa xaalis dañ lay fay. Hmm. compte courant bi nga xam ne da ngay joxlante yow yaay fay banque léegi nag banque bi mu nee képp koo xam ne da yor compte épargne foo mënta dem mënoo retirer dara waaye compte courant bi mën nga retirer ba deux cent mille day tax nit ñi génnee seen xaalis ci compte épargne bi nga xam ne banque bi leen war a fay dugal ko ci compte courant bi nga xam ne euh, banque bi da ciy dagg xaalis bu ko defee. bu ñu demee ba Touba bu ñu demee ba Tivaouane bu ñu demee ba Kolda mën a am as tuut bu ñu retiré. Mhm. benn moo nekk noonu mooy euh, dafa bëgg a jouer ci comportement euh, épargnant ñaareel bi mooy xam nga loolu bu ko waxee dafa bëgg a supprimer chèque dafa wàññi chèque bi xam nga chèque dafa compliqué pour banque. Mhm. parce que chèque këyit la boo xam ne pour traiter ko il faut que nit moo koy traité du ay gàpp du ay yooyu nit la te nit kooku da nga koy fay salaire. te nit kooku day nekk ci benn agence boo xam ne da nga koy loué agence su yi ngay gis noonu te agence ba da ngay fay location da ngay fay courant da ngay fay internet dangay fay ndox donc ñoom pour wàññi seen charge yooyu. liggéey liggéeykat yi fa nekk bañ a ti ci liggéey loolu bokk na ci décourager nit ñi ci ci ci ci di utiliser ay chèques. loolu nag du dëgg yoon parce que banque bi warul imposer clients yi instrument de paiement euh, boo xam ne moom la war a utiliser. parce que en réalité. il faut que dañuy xam ne chèque instrument de paiement la boo xam ne bu mention obligatoire yi nekkee ci biir mooy daanaka signature bi leer na baax na euh, xaalis ba euh, mu ngi ci compte ba euh, bind nañ ci montant bi ba pare ku koy ku jël du ñu tudd. Mm. loolu bu amee ci chèque rek ordre nga jox guichetier pour mu fay obligation la am pour fay waru ko rejeter benn yoon bu ko rejeter rek yoon dana dal ci kawam moo tax ñun ñu ne li CBAO def. di ci jéem a wut xaalis. Mhm. teg ay dëgg sërëxal pour que pour nit ñi ñu bàyyi chèque bi dem ci carte gab yi may fàttali sénégalais yi ni carte gab dana jari cent vingt deux mille francs il faut que mu leer am na ay banques yu ko commencé te banque yëpp a koy def. carte gab bi cent vingt deux mille francs lañ koy jaayee sénégalais. te opération boo ci def. Mhm. ci gab boo xam ne bokkul ak sa réseau di nga fay trois mille cinq cent francs maa ngi preuve yi maa ngi yi te démarré nañ ko. donc dañoo bëgg nit ñi. bàyyi chèque bi parce que chèque cherul. Mhm. talon bi bo xoolee ay 600 euh, mhm. francs lay jar nga am ci 25 talons. daanaka chéquier bi 600 francs lay jar am ci 25 talons yoo xam ne mën nga koo utiliser te ñoom dañ ciy recruter personnel dañ ciy fay location dañ ciy fay ndox dañ ciy fay internet moo tax ñoom pour wut ci xaalis bañ a recruter ñi xale yi def banque finance bañ a créer emploi parce que ay ay banque étrangère lañ. soxlawuñu fi jox liggéey kenn ñoom dañoo ñëw wut si xaalis moo tax ñu bëgg a forcer ñu bàyyi chèque bi dem ci quartier bi nga xam ne dañoo triple prix bi yóbbu ko ba cent vingt deux mille parce que banques yi commencé nañ ko ba pare opération boo ci def ñu facturer la. kon loolu nag. Uh-huh. day wàññi li ñuy wax mën-mën kattanu pouvoir d'achat wu liggéeykat bi ñun mënuñoo nangu ñuy xëy di coppat suñu xaalis. Mm-hmm. di wut ñu ko lekkee te ñun xaalis bi lañ koo liggéey. war war war a dem suñu njaboot ñoom ay banque étrangère taxaw fi euh, ñu war a jël ay sanctions kenn jëlul sanction ñëpp di leen xool observatoire bi nga xam ne moom moo waroon sax alerte état bi alerté wu ko ba ñun ñoo mujj alerte état bi pour que état bi wax ak moom ndax mu a dara. parce que li fa am mooy. Mhm. ñoom dañoo dem ba lëkkaloog banque yi waa observatoire dañoo dem ba lëkkaloog banque yi doon doon doon doon cerek meew ah doon ci benn benn entente illicite boo xam ne sur le dos. des des des euh, des populations. kon bu ma la déggee euh, ñi naroon a réguler dañ leen a seetaan observatoire boobu ngay wax ak euh, banque euh, donc banque centrale. banque centrale banque centrale moom da cee yéeyul yàbbi sax yàbbiwul si sax parce que xam nga tey banque centrale moom mooy régulateur principal parce que moom moo waroon di jël sax ay ndogal di sanctionner ci commission bancaire bi mais banque centrale da cee waxul dara xam nga sax dañuy gis. ba fan yi passé AR ku mel ni ARTP. Hmm. jël ay sanctions teg ko ci opérateur bi mais Sénégal fii kenn mës na dégg banque euh, euh, banque centrale jël ay ndogal ay daan teg ko fi te ñëpp xam nañ ni banques yi jalgati dong lañ nekkee ci dëkk bi sàcc xaalisu nit ñi lañ fi nekk wuruj ak dëgg sërëxal chaque jour banque centrale ñun ñoo leen di envoyé ay plainte ay réclamations mais defuñu ci dara te ki ko jiite nekk Sénégal al amiru loola tudd sénégalais la comme ñun mais lëkkaloo ak euh, ay banques étrangères ñuy toroxal askanam loolu la fi nekkee moom ak observatoire léegi nag ñun faluñu ñooñu ñun kan lañu ñu mooy président de la république dénk ko suñu réew mi pour mu toppatoo ñun ay liggéeykat lañu te bëgg nañ bu ñu liggéeyee bu ñu fayee ñu jël ko yóbbu ko suñu njaboot waaye du ñu liggéey ba weer dee ñu fay ñu banque di ko toppati ba nga ñun lu ñu waroon dundalee suñu njaboot duñ ko mën a def. bu ko defee ay grève jàngalekat am ay grève agent de santé am. parce que li ngay gis ni yëpp conséquence su euh, euh, banques yi la parce que dañoo nekk ci benn wutum xaalis boo xam ne ñu ngi ciy toroxal askat bi fi mu nekk nii kenn mënta am dara ndax banques yi réglementation bi dañ koy violer texte yi dañ koy violer seen yoon newu ci parce que gis nañ ni amul benn kuréel bu nekk seen kaw boo xam ne mu ngi jël mu ngi jël ay sanctions. Mm-hmm. état nag moom ci côté am moom xam nañ ni observatoire moo liggéeyul bu observatoire liggéeyoon. président de la république ñun xam nañ ni nekk na ci dynamique boo xam ne te yàgg na koo wax yàgg na leen artu ni du nangu mukk ñuy toroxal doomu réewam euh, ci ay dàq su dul noonu ci ay tëgg sërëxal ci ay wuruj yu ñuy def noonu. lan nga jàpp ne moo waral secteur bancaire am ay jafe-jafe yu bëri fii ci même réew. mais c'est parce que euh, dañoo dañoo amul sanction xam nga secteur bu amul sanction te kenn mësu koo dégg bu boobaa banque yi dañuy def lu leen neex. yow gis nga ni banque yi dañuy jékki-jékki dagg la ay dagg yoo xam ne teguñu ko fenn boo demee di def réclamation ñu la sax expliqué doo am sax ku la faale ci ci ci affaire bi ci ci ci mbir mi da ngay dem taxaw mel ni kuy saraxu doo am ku la toppatoo sa xaalis jël nañ ko da nga koo liggéey mu métti lool luy mujj wax mooy bàyyi naa ko yàlla. parce que tamit nit ñi amuñu moyen yu ñu yóbboo banque tribunal dafa xaw a jël avocat di soutenir un projet alors banque moom de facto moom boo leen boo ko yóbbu tribunal am na avocat am et day recruter les meilleurs avocats parce que xam na ni dóorkat la dóorkat day xëccoo les meilleurs avocats pour que boo leen demee euh, ci bu ma xam ne doone benn moom mu am ci yow dëgg te gis nga banque même boo leen demee tribunal nga am ci moom dëgg mënoo koo saisir tey huissier yi am nañ tous les problèmes du monde pour saisir banque yi parce que yow booy dem di leb ci banque bi banque bi da lay ay garantie garanti yooyu sa kër ci lay bokk parfois boo fayul rek mu dem nangu sa kër dem jaay ko waaye banque bi boo ko gañee ci benn projet war ko saisir moom mu ne la awma dara nga ne ko waa agence bi mun ne la dem koo loué nga ne ko oto yi mun ne la dem koo loué ne ko machine yi mu ne dem koo loué te gisee yi mënoo fa accéder waaw mais loolu mooy lan nit ki bu la tooñee jël sa alal juge ne nañ ko dem jëli yow nga wut huissier mu ne la man awma dara dañoo organiser seen insolvabilité il faut mu leer sénégalais xam ko amul kenn koo xam ne mën nga gañe banque ba ba saisir ko pratiquement dafay métti lool lool lool boo ko gañee Sénégal mu yóbbu la Côte d'Ivoire CCJA nga xam ne sa doole tollu fa sa loxo yeggu fa mu gañe la fa alors que moom bu la gañee Sénégal ñu nangu say bien yëpp dox ko mais il faut que ñu xoolaat mbir mi càmbaraat ko autorités yi xam ne peuple bee leen teg te peuple bi mu ngi dund coono bu métti métti métti ci banques yi am na naqar bu métti métti boo duggee ci réseaux sociaux yi partout foo dem da ngay gis ni ñoom am nañ problème ñun nag. Hmm. jël nañ suñuy matuwaay. mooy waaw jël suñuy matuwaay yu mët. Mm-hmm. mooy lan mm-hmm. banque bi dinañ ko yóbbu tribunal. parce que dem nañ tribunal demandé naa juge pour mu autoriser ma ma jël huissier mu dem constater li mu def dès lundi ñun danañ déposer suñu plainte bu ko defee ñu dal ci kaw banque bi parce que man maa dugg ci banque bi ak chèque bu cent dix mille signature bi lépp normal la ñu bañ koo fay loolu dañ leen di yóbbu fu fu baax ne doonee benn beneen bi mooy nee nañ na ñëpp génn CBAO pour ñu jox exemple yeneen banques yi. nga xam ne banque bu ko def ñëppay ñëppay génn ñëpp a koy sanctionné na ñëpp génn na ñëpp retiré seen xaalis dugal ko ci yeneen banques yi beneen banque bu copier lu oo def ñu def ko noonu parce que sinon trois milliards de gains yi banques yi ñëpp ko bëgg bu ko CBAO defee mu jàll yeneen banque yëpp dañ koy def bu ko defee ñëpp torox ñëpp bokk ci yem mujj bi nag ñu lekk suñu xaalis rek nu ñuy liggéey rek ñu toog di leen seetaan beneen bi mooy il faut que ñu xam ne fi mu nekk nii ñu ngi koy waajal hmm. plan d'action national lay doon mouvement national lay doon euh, sit-in wala marche ça dépend ci formule nationale lay doon amul benn gox bu ñuy bàyyi amul benn banque bu ñuy bàyyi nit ñi danañ génn en marche ci région yi ci département yi ci communes yi pour que ñu won état bi ni kontaan nañu ci banque yi banques yaa ngi ñuy toroxal banques yi jël nañ suñu xaalis di ñu jaay doole. ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, Famara Ibrahima Cissé nga jiite association des clients et sociétaires des institutions euh, du euh, financière muy Axif merci beaucoup. je vous en prie.